man waa di génn de man xaw ma la ngay retaan yi eh, mais nam nañ la alaaji Fadam waaw dama dama doon génn de mais bismillah maa ngi lay ziar Fadam bàyyi sànni xeer yi mais nam naa la ci law rek mais maa maa la doon mbaa ngi si jàmm maa ngi bu baax a baax alaaji Buzz naka naka yaram bi waaw yaram waa ngi nii rek naka Sénégal xaw na affaire yi xaw na jaxasoo de. non mais nag jàmm rek ah dëgg yàlla lépp ci jàmm rek lay mujj. Ah, waaw waaw waaw jàmm moom mooy mooy mujj. waaw ndax tamit réew mi moom bu dee loolu mag ñi ñaan nañ ko fi. Mhm. liggéey nañ ko fi te ñëpp li ñuy bokk ut rek mooy jàmmi réew mi. dëgg la dëgg la dëgg la loolu lépp ci jàmm rek lay mujjee. waaw ah, waaw waaye jàmm ji war naa gaaw de Fadam. non day gaaw jeex ah jàmm ji day am day am day am. jàmm ji war naa gaaw am na yoo xamante ne moom boo koy boo koy séen de loin moom c'est décourageant quoi. waaw. waaw waaw waaw Sénégal météo. métti na métti na ay boo demee ba gis ay nit yu jël ay gaal moom pare pour pour dugg ci ay gaal pour tukki. Mm. wala ñu naan la ay gaal bi am na ñu ciy dee teewul dañuy duggaat demaat. Mm. xam ni situation bi critique na quoi. critique na trop critique na trop situation bi situation critique na trop trop trop. ne ko situation bi critique na trop waaye yàlla bëri na sutura yàlla na ko yàlla. yàlla na ko yàlla na ko yàlla Sénégal gépp. wallaahi ci nu mu gën a gaawee. waaw képp koo xam ne ni daal tukkee la gënal yàlla na la yàlla may nga tukki àgg. Mm-hmm. képp koo xam ne nii nag ci réew mi la gënal yàlla na la yàlla dimbale nga tekki ci réew mi. Eh, eh. waaye eh, boo ñaanee ñaanul képp koo xam ne tukkee la gënal <laughs> fanam. mbaa réew mi bu meer paa yi dinañ wéet ci kër yi de madame <laughs> <laughs> madame ñuy des ndakaaru duñu bari de ah man man man man man man bës barki Serigne Babacar réew mi ma gënal non man tamit barki Serigne yëpp réew mi ma gënal man itam sama bopp moo gënal Sénégal yëpp mais dama ne la boo ñaanee yàlla jamono ji fu mu toll ji nga ne ko bëgg a tukki na nga tukki <laughs> damay ragal suba nga yeewu gis ko ñuy wéet mu meg mu mel ni màggal Touba moo am nga dugg biir koñu Dakar yi wala mu mel ni tabaski gars yi dem koñu Dakar dinañ wét dem mais buzz buzz buzz actualité bi nekk ci làmb fan yi bari na ah. Mhm. Mhm. Euh, yaakaar nga ne gis nga Ibrahima Diop barki démb ci plateau de TV waa cnz mhm. nee nañu. ci gri Bordeaux gri Bordeaux gri Bordeaux. moom loolu mu wax ne tey jii ne mënu cee bëri. ci date deux mois boobu Ibrahima Diop proposé. Mm-hmm. deux mois yu manqué yooyu Gris Bordeaux moom ci mois de décembre la wax ne ci la mën a bëre. Mm-hmm. Mm-hmm. te yaakaar naa ne tey ci avant décembre boobu ci lañ réalisé combat Ama Baldé Modou Lô. tey jii promoteurs yi bëri ñu ngi def bras de fer ci suuf ndax ñu bëri tey jii Ibrahima Diop bëgg nañu Ibrahima Diop réaliser làmbam. bëri loo ko foofu mais Ama Baldé nangu na et Ama Baldé nangu nañu. Mm-hmm. mais Gris Bordeaux ak waa Fass nee nañu Gris Bordeaux mënta pare ci daanaka deux mois yu manqué mm-hmm. ndax Ama Baldé athlète bu mag la. Mm-hmm. yooyu yëpp tegu ci làmb nga gis Ibrahima Diop nekk benn promoteur boo xam ne tey jii li nekk ci làmbam yëpp mu ko basé wu ci Gris Bordeaux instant yi ñu toll. tey jii ci mois de novembre boobu Gris Bordeaux euh, Ama Baldé war na cee bëri euh, euh, Modou Lo Ama Sène war cee bëri Tapha Tine actualité làmb. bi war a commencé promotion wala làmb war a commencé ci te ci bëri de guerre numéro deux mhm. yu ci bëri combat yu bëri war ci am dëgg la combat yu bëri war ci am mhm. yooyu tey ji ak coowu làmb guddi noo ko jàngatee alaaji Beuz waa effectivement comme tam nañu wax làmb dafa bëri coow mais je pense que fu mu toll nii làmb coow yi dina gën a bëri et puis ça va pas se calmer tout de suite ah ça va hmm. pas se calmer parce que euh, CNG bi pour man Euh, lu ñu war a def dese nañ ko def quand il y a un problème oui, bon, xam da nga koy ñun suñu boobu ñun dañuy sentir problème bi muy xeeñ di ñëw Mais ça, boobu j'ai vu tout ça parce que gisoon naa maa communiqué que ku ci mel ni Baye Ndiaye maa communiqué ku ci mel ni Luc Nicolaï maa communiqué ak Ibrahima Diop maa ngi ak tamit Makan Meng donc di nga xam ku ci nek lan moy c'est état d'esprit donc ñun suñu boobu ñu ngi sentir lolu muy xeeñ moi à la place du CNG avant même d'octroyer euh, à Willy Nicolai et Lim Nicolai la date du 5 novembre ci Modou Lo Pour Baldé bu ma déggee ni Gris Bordeaux fait na damay toutes les parties prenantes parce que c'est deux combats qui nous fatiguent depuis plus de deux ans trois ans quatre ans. Gribo, Gris ça fait plus d'un an que nous enquêtons ces cachets au niveau du CNG Modou Lo ça fait plus de trois ans quatre ans que combat pour nous, taxaw ba vider

Luc Nicolaï ou Willy Nicolaï ñëwal euh, Gris Bordeaux ñëwal Modou Lo ñëwal Ama Baldé ñëwal ku ci nekk ci yéen ñett ànd leen ak seen trois seen manager yi ngeen ñëw ñu toog def table ronde régler ce problème la mais pour man CNG dafa jël ay décision ci mbir boobu te décision yi dina ci gën a indi ay coow am na coow yoo xamante ne dina ñëw parce que peu importe lu ci mënti am dina jur coow ak lu ci mënti am comme décision dina jur coow Ibrahima a ne va pas se laisser faire du bàyyeeku day rayante Luc Nicolaï itam il ne va pas se laisser du bàyyeeku donc tey Modou Lo itam du bàyyeeku donc enjeu yi dafa bëri tey image non ñu octroyé à la ñu comme CNG nu mu dëggalee ba mu octroyé la date de du premier octobre ak Gris Bordeaux Ama Baldé imaginons Gris Bordeaux dugal ñoo ne pare na pour bëri signé ko ñaari guerre benn bi mooy diggante

donc CNG li mu waroon def mooy quand Gris Bordeaux dugal guérison au lieu que ñuy octroyer datu Modou Lô Ama Baldé CNG dafa waroon woo partie prenante yëpp bu trouver benn consensus ne leen lii mooy sama xalaat lii laa bëgg lan ngeen ci xalaat lu leen arrangé ku ci nekk wax mu noté wax ak ñoom ci benn débat bu débat boobu sottiwul nag mu ne leen léegi man maay décidé mais en fait dafa ñëw rek jël ay mesures teg fu ne te mesures yooyu ay conséquences yu metti ci promoteurs yi ak ci mbër yi parce que effectivement comme ni nga ko xamee guerre bi dina takarnaase et amna amna ay ay ay ay ay nit yo xamantene boko guñ ci xex bi à 100% pour cent mais dinañ dugg ci ci xex bi donc xex bi day nekk xex bu yaato yaato yaato yaato mais man mais man loolu nga wax noonu dama ko laaj wa CNG ndax nee naa bu fekkee ne lamb toll na fi bi Willy nicolay di ñëw ci lamb CNG di régulariser combat Ama Baldé Modou Lo te xamoon ngeen Ibrahima Diop. Euh, ki nga xam ne ni tey jii mooy Gris Bordeaux dugal na certificat de dirigeant mhm. ndax yoon la woon ngeen régulariser combat Ama Baldé Modou Lô mhm. ndax dama toogoon dégg Bira Sène mu ne mënuñoo def ñaari régularisation ci benn ci ñaari combat yu bokkul mhm. loolu loolu bi nga ko déggee tamit yow loolu nan nga ko jàngatee ci ci côté CNG bi noonu waaw am na côté boo am CNG ci ay explication explication ci CNG joxe mooy ñaari combat la yu yàgg ñaari combat yo xamante dafa yàgg bu mu taxawé et c'est un jeu xoolee CNG dafa n'y ñaari date avant même blessure di am dafa jàppoon 9 juillet ak 29 octobre donc CNG bu jappaté ñaari date explication bobu rek lay joxe mais n'empêche dina ci am promoteur bu ci lésé wu mais Ibrahima Diop il a trop attendu il a eu beaucoup de problèmes dans la lutte moom fu mu toll ni gisul ni que il peut il doit encore repousser sa date xalatuko mom na teug paré ci peu importe liñ koy naxé ay combat royal ay nanani nanana mom il s'en fout moom son objectif moy na teug Gris du Ama Baldé vraiment wacc tourner la page de la lutte dem jàll ci leneen Luc Nicolaï aussi il est dans la même conviction il a la il a la même conviction moy de war teug tëgg ak Ama Baldé vraiment combat bi yag na nako taxawal teugou ko après jàll ci lenen légui nak ku nek bugul xaar ce euh, ce morom e, tëgg ba pare ñu ko lay amna datu 5 novembre Ibrahima Diop jot nañ ko 1er octobre lu ñuul ci soxli fu mu toll moy grippe Gris mais e, ñu ngi ci ay coow yoo xamante pour man CNG mu ñu ko éviter en réunissant le monde de la lutte. Mm-hmm. réunir la lutte moom mooy dajale promoteurs yëpp yu sék affaire dajalé dajale mbër yu sék affaire autour d'une table ronde def une vraie séance de travail. pour génne ci ay solutions yo xamantene moy solution yo xamantene bu arrangé wul ñep itam dina arrangé 95% mais bu fekkee ne bu fekkee ne dañoo dem ba ci biir giri Bordeaux nangu tëbëreel Ibrahima Diop ki dat bii ñu ko wax. Hmm. ndax man dama laaj giri Bordeaux tête à tête ma ne ko giri Bordeaux sa digganteeg Ibrahima Diop mi nga xam ne mooy promoteur bi nee na da nga fa bëgg nga bëreel ko ci deux mois yi manqué. Hmm. ki bala nga bala amable de bëri Modou Lô. Hmm. mu ne man ak sama staff waa face ñu ngi ci réunion yoo xam ne ni tey jii bu ñu soñoon ñu ngi préparé pour mën a bëri amable de ci mois de décembre. tey jii Ibrahima Diop ndax tey jii euh, warta woo woo Gris Bordeaux waxtaan diggante ñoom ñaar pour loolu li mu bëgg mu mën a am. waxtaan ci njëlbeen ba woon waxtaan ba ci njëlbeen ba la woon. comme hmm. waxtaan bi ba amul. wala boog jaarul ñu mu war a jaaree. parce que effectivement man ci combat yooyu yëpp daanaka maa ngi ci woon Gris Bordeaux ak Ama Balde bu mu ñëkkee yàqu ci côté Ama Balde euh, vraiment Gris Bordeaux am na ñu ci coopéré woon après bu mu yàqoo ci côté Gris Bordeaux Euh, Nous mu waroon demain, demain ko après encore Gribaud de bu mu dugalee guérison après Amna Ben étincelle bu ndaw bu du ci diggante Gribaud Bordeaux ak Ibrahima Diop ba nga xamante affaire bi compliquée mais pour man instant Gribaud et Ibrahim ak Ibrahima Diop autour d'une table régler l'affaire l'affaire c'est le CNG qui doit régler cette affaire là moom moo tous les promoteurs ak tous les lutteurs où il a dajale par combat

def mel ni tey nga génn ci mbedd bi agressé benn nit tëll boo ko reyee pistolet ñëpp di ko gis flagrant délit tey dama ne la boo ki nga rey sax famille bu ne bànneel la sax demewul noonu justice day def liggéeyam donc fu mu toon bi nag mooy CNG affaire yi yàgg na ci loxo CNG CNG taxaw taxawaayam ndax man ndax man Ibrahima Diop mi nga xam ne tey jii dafa réalisé woon combat Ama Baldé ak Modou Lo asafur la combat Gris Bordeaux Ama Baldé biir CNG Mhm. ñun dem nañ ba jot ay information ne diggante Ibrahima Diop ak Gris Bordeaux seen diggante neexatul. Mhm. te Ibrahima Diop jëloon xaalisam jox ko Gris Bordeaux. Mhm. ndax loolu Ibrahima Diop mënta sacrifié wu li mu bëgg ak li bañ pour mën a waxtaan ak Gris Bordeaux ndax xaalisam ci Gris Bordeaux la nekk. lépp lu muy mën a def pour mën a sauver ndax Gris mi ma dégg bu fekkee ne dem na ba ci biir bras de fer waa CNG ne leen date bii ngeen ma jox arrangé wu ma su ma sañoon da ngeen may may benn deux mois trois mois ma préparé wu Ibrahima Diouf waxtaan ak Gris Bordeaux pour loolu Gris Bordeaux mën a bëri Ama Baldé ndax du gën a sobee li nga xam ne mooy journée am ak li nga xam ne ci la jëm balaa Ama Baldé di jëm di bëri jéeg moo Lo loolu wax dëgg dara. waaw xam fan man tey damay mal placé man tey du ma ko nëbb tey euh, damay damay mal placé pour joxe yenn conseil yi à certains promoteurs yàlla dogal na contrat dox na sama digganteeg Ibrahima Diop contrat dox na sama digganteeg Willy Nicolai di doomu Luc Nicolai

bu juboo mun ci relation relation boobu mais man je me verrais très mal placé pour ne Luc euh, na def lii wala Ibrahima Diop na def lee parce que vraiment après loolu day day xaw a doy waar hein, je pense. nangu dégg naa la dégg naa la dégg naa la dégg naa la mais man fii ma toog ñu tey rek gis naa benn affiche su Meng bu mu lancé waa Gaston production ci diggante Modou Lo Boy Niang. bien sûr analyse bien. soko analyser hein ah, li du luma wax ak Makan. Ah. du luma wax ak man sama ah. analyse buzz amateur moy wax. waaw waaw buzz amateur ak analyste. sama analyse ci lolu moy mm-hmm. Makan daf len ni ak lu ngeen mënti def. japp len ni ma ngi tok di xaar di len baye mooy mm-hmm. kérok bu bo do Ama balé bu ngeen deugalé boobu ñu né modlo Ama Baldé da ngeen ko bëgg a yobbu ko tel boba man mm-hmm. do arrêté damay duggal modlo Boy Niang Makan alerte yoy lay sanni alerte mooy nam CNG bàyyi leen seen xel de bés bu ngeen poussé Ama Baldé Modou rek man damay dugal Modou Lo Boy Niang kuy jàngat loolu la war jàngat yàlla xam nañu makan waxuma ci dara mhm. mais man loolu mooy jàngat par rapport ak situation bi parce que gis naa ko keroog bu coow li takkarnaase ci Gris Bordeaux Ama Baldé Modou Lo Ama Baldé automatiquement waa Gaston production ci lañu commencé dugal seen affiche ci Modou Lo ak Boy Niang donc effectivement oh, oh. effectivement effectivement donc am sax ay yenn message yu ma dégg ñu ko ci dolli ay saa ñu bëggee yëngal game bi dañ koy yëngal ak jàppal bàyyi yooyu ça veut dire hmm, ça veut dire que ñoom vraiment ñu ngi xaar rek erreur am ci benn côté ñoom ñu dugg dans la danse <laughs> mais man mais man mais man yaakaar naa ne fii làmb toll nii fii làmb toll ba ndax Gris Bordeaux nekkut ci réglage pour bëree combattre roi des ndax benn yoon ko mos a bëri ndax Ama Baldé tey jii mu ngi bëreeg Modou Lo te Modou Lo mën naa daan Ama Baldé waaye Ama Baldé tamit mën naa daan Modou Lo ndax Gris Bordeaux du ne benn yoon laa mos a bëri combat titre de des sama diggante yi kii nii ndax tey jii du ma candidat sama troisième sens sama deuxième sens kii xaar Ama Baldé mu bëreeg Modou Lo lu fa am ma mën a carte loolu ndax tamit Gris Bordeaux xelam mënta dem ci loolu ak waa Fass. dem Fass écurie bu mag la Fass écurie bu mag la attan nañ lu ne ci làmb. waaw yaakaar naa ni euh, jege naa yenn promoteurs yi mais jege touti tamit wa face sen dirigeant yeeg yooyu am na ci jotoo waxtanal bo fateliko live bu ñu mujjee live bobu Gris do dugalagul guérison nga wax ni que gribo do est-ce que du combat royal lay xaar ma la attention amna luy waaj xew loolu bu xewé dina xawa a tuuma fekk bobu gribo do dugalagul guérison mais deux jours après mo wax la loolu ci le gribo do dugul guérison loolu moo la doon bëgg wax mooy gribo do nga dugal guérison donc attention Fadam bu fekkee dañu bëgg a wékk ni gribo do loolu lay xaar kon grison gribo do ba du dugg parce que grison gribo do bi moo du moo indi coow li yëpp Gris Bordeaux mënoon na maintenir boppam ne leen écoutez man maa ngi commencé sentir sama bopp mais du ma dugal sama guérison damay bàyyi ba cent pour cent te damay bàyyi ba combat Modou Lo Ama balde, ba bëre ba noppi ma soog a dugal sama guérison mais gribo do te grison boobu mu dugal tey moom mo indi jiixi jaaxa ci niko gribo do Bordeaux Ama Baldé ñoo ñëkk bëri donc lolu day dégager automatiquement en touche niko gribo do objectif principal la mooy bëri combat royal je pense pas que lolu objectif principal gribo do bu doon objectif principal gribo do gribo do du dugal Grissom mhm. ba départ bu modlo Lo Ama Baldé jege si mu soog a guérison bu ko defee bu Ama Baldé paré ci modlo rek mo gribo do dañuy ñuy siffler ji donc man côté boobu mom gisuma wa face di débat ci côté combat royal maintenant nak dina am lo xam avantage lay doon avantage nag boo ko déggee moy dina am lu mënul am mais leneen li mu nekk benen avantage suuf moy gribo do bu wulé hein euh, ak Ama Balde avant Modou Lô Ama Balde gribo do amna na chance bëri combat royal loolu nak bu na nekk euh, avantage mais du objectif principal mais fi fi fi lamb jëm ni fi lamb jëm moy yaakaar na ñu ngi jëm ci bëss yo xam ne nii tey jii Ibrahima Diop ba légui ni barki dembu dégg naa waa CNG ñu ne tey jii Gris Bordeaux envoyé na fa benn lettre boo xam ne nii di wane ne moom mënta bëre ci date bi nga xam ne moom Ibrahima Diop léegi waa CNG jotaat naa ay information ne ñu ngi bindaat lettre boo xam ne nii dañuy wax Gris Bordeaux mu ñëw bëri si far force ndax date boobu ñu ko wax diggante mag Ama Balde mooy date bi nga xam ne nii mooy date mu war a mën a bëree. Gris Bordeaux nag amaat na yeneen avantage yoo xam ne tey jii war na ko mën a ñëwaat jàkkaarloog waa CNG tey jii mooy li nga njëkk a wax CNG moo waroon a njëkk a woote membre concerné yi nga xam ne tey jii ñoo séq lamb yëpp muy li Nicolas Ibrahima Diop Makan Meng ah ba ci Baye Ndiaye mi nga xam ne moom mujjee ñëw sax bokk ci buxante bi war nañ ko mën a woo ndax tamit Gris Bordeaux maa ngi jot ay information ne gaa yi ngi dox beneen comba am bu bokkut ak Ama Baldé yooyu yëpp mu ci biir làmb yooyu tamit yëpp xew ci léegi CNG bu pour mu defar làmb mu def ndax man làmb bëgg naa ci coow trop bëgg naa ci coow mais coow li xaw naa ci am tuuti yërmande nag coow coow li bëgg bëgg coow. yow kan nga ci yërëm. bëgg bëgg xam koo wala ñu ko laaj nga yërëm wala Modou Lo wala Ama Balde wala. ci yërëm yow. xam nga tey jii xam nga tey jii xam nga tey jii boo yërëmee li Nicolas yi loo ko yërëm yërëm yërëm doo fee nga yërëm Ibrahima Diop. Makan Meng gars yi namm nañ coowam du ñàkk tamit ñu jox loxo. Baye Ndiaye mi bëgg a ñëw ci diggante Eumeu Sène Tapha Tine du jàpp ñu jox ko loxo te gars yi bës dañoo yàkkam ci mbër yi daanante ba am leneen lu xewaat foofu ndax am na yenn mbër yoo xam ne sax maa ngi jot na ay ñu ngi leen di woo seen bopp bu ngeen bëree bu ngeen bu ngeen daanu taxaw leen xaar ma yooyu yëpp maa ngi ko ciy dégg mais man si ma bëgg a jëm bës mooy CNG bu doon bu doon sa sago kan mooy njëkk a bëri yow sa kan mooy njëkk a bëri bu doon sama sago waaw bu doon sama sago ndax bés du ma la question boobu bu doon sago yow. pas une question pas une question. non bés xam nga man li sans problème xam nga li ma sans problème. man bu dul woon dara Ama Balde nañ ko teel a libéré. ndax Modou dafa yàkkamtee brique Ama Balde ci dat bii ñu ko wax. Ibrahima Diop mi nga xam ne dugal na xaalisam perte ci làmb dugaat xaalisam perte na xaalisam perte na ko Gris Bordeaux jàppale brique Ama Balde ci dat bii ñu koy wax. loolu lépp lu mën a nekk la waaye Gris Bordeaux ndax date bi ñu koy wax ci diggante ak Ama Baldé ndax date bu ko arrangé la ndax date boo xam ne mën na cee daan Ama loolu moom la concerné ndax man su ma déggee su ma Gris Bordeaux waxee man mooy parewuma ci niveau entraînement dugal naa sama dirigeant mais bi may dugal dirigeant bi boobu damay yaakaar ne dina am date bu diire boo xam ne nii su ma dañ ma ko jox ndax Gris Bordeaux date bii ñu jox Ibrahima Diop du ko bett du ko bett moom yaakaar ndig sërëf bi nekk ci biir làmb làmb <laughs> match yi xew ci suuf bi dafa bari <laughs> mais mais lan nga yaakaar ne nag mooy solution bi cent pour cent lan mooy solution wu làmb bu di ñu toll fi mën a jëm ci combat yi jëm Ibrahima Diop mën ta ñàkk bañ a tëgg waaye bu sàgganee tuuti mu ngi doxee benn tànk ndax Gris Bordeaux Gris Bordeaux pour combat Ibrahima Diop am il faut Gris Bordeaux nagoo bëre pour Ibrahima Diop mën a tëgg il faut Gris Bordeaux nagoo bëre foofu tamit coow la bu Gris Bordeaux nagu ta bëre buzz Ibrahima Diop mën a tëgg te xam naa ne lu ko semaine yii li ñuy gën a dugg rek Ibrahima Diop bu Gris Bordeaux ak accordé wul rek Ibrahima Diop ay frèm heure bi war na fekk mu commencé nekk ci programme signature am affiche commencé daw affaire yooyu yëpp waroon na commencé daw ko war a nekk ci promotion combat te wóorul na mbër bi ngay bëriloo dina bërin déet kon heure bi Ibrahima Diop am na fu mu a féetu ak ñu xam waaw xam nga problème mu làmb mooy problème mu Sénégal mhm. man noonu laa ko jàngatee mhm. gis nga dafa am mbir fu muy toll les sages doivent intervenir mhm. gis nga nu sages yi war a intervenir ci ci ci ci ci ci làmb noonu la sages yi war a intervenir fu mu toll nii ci Sénégal nu muy doxee jamono ji xam na am nga dégg ci li may wax sage nag boo ko déggee ci ci ci ci ci ci Sénégal ci réew kilifa diine ci bokk ay mag ci lañuy bokk ay nit ñu baax yi ci lañuy bokk ay waxkat lu baax ci lañuy bokk noonu la sageu làmb yi ñi nga xamante ne tey mooy ñoom Moustapha Guèye ñoom alaaji Boy Kayre ñoom Age Mansour mbay mm-hmm. ñoo xamante ne am na lu ñu def ci làmb bi ñëpp ràññee leen mm-hmm. ñooñu noonu lañu war a intervenir ci làmb jamono ji mais le problème mooy sage bi ëpp solo jamono ji ci làmb ki nga xamante ne sax moom mooy le président des sages ci làmb il est impliqué dans cette affaire à savoir Moustapha Moustapha Gueye moom mooy président des sages moom décret moo ko nommé décret ministériel moo ko Madame, décret bi nommé CNG décret bobu non Moustapha Guèye dafa beaucoup ci comité exécutif ou CNG bi nga xamantene bureau bureau CNG bi nga xamantene ñom ñom ñoo am droit tay siège au niveau du CNG tay Tafa dañ ko fi bind président des sages donc tay Moustapha Guèye le problème ni que Moustapha Guèye mo waron tok régler cette affaire là entre le CNG les lutteurs impliqués et les promoteurs impliqués mais Moustapha Gaye, mon ci bopam euh, partie prenante là parce que Moustapha Gueye mom lañ tuddé combat Modou à Ama Baldé ba pare Moustapha Gueye bokk ci staff Luc Nicolaï Enko ba pare wax ci dolli Moustapha Gueye nek kilifa Griboudou Bordeaux face ni ne du bëri Moustapha Gueye amna ci cër à 50% ou cent donc Moustapha Gueye mom non, tay mi waroon régler problème bi tay mon acteur la ci parce que il est parti prenante tey jii d'une structure bi nga xamante ne moom mooy Luc Nicolaï Enco mhm. ba pare itam nekk membre écurie Fass décisionnaire ci ñàkk bëri Gris Bordeaux mhm. donc tey il faut ñu uti ji yeneen sage man sama xel dem na ci du jànjekko du jànjekko na taxaw régler problème bi en tant que président des amateurs ak ay rakkam ñoom sa xarit ñoom góorandoo ak yooyu nañ àndandoo du jànjee ko mag la na nga ko jox droit d'aînesse mu jël ay responsabilités dem seeti CNG seeti Ibrahima jóg seeti euh, Luc Nicolaï seeti Gris Bordeaux seeti Modou Lo seeti Ama balde si le faut sax ñu boole ci Boy Niang ak ki nga xamante ne moom mooy Makan Meng mu seeti ñoom ñëpp fexe ñu def ay séance de travail wala ay rey réunion au niveau du CNG pour génnee ci solution parce que làmb boobu ba léegi ñaari combat yi ñoo ko sonal ñaari combat yi kii nii moo tëj làmb wala benn combat Modou Lo Ama Balde bi moo tëj làmb ak Gris Bordeaux Ama Balde bu ci toftalu moo tëjaat làmb ñaari combat yi ñu tëj làmb du du jànjeeku nu jóg. mais ndax ñooñu ngay wax noonu ñooñu ngay wax noonu. Mm-hmm. ak li nit li ko laay daj ci diggante Modou Lo Ama Balde ak li Ibrahima Diop perte ci làmb yépp mm-hmm. kan moo ci ñëwee jàkkaar la ñoom de la. Ah, <laughs> ma déggante téléphone ak Luc. waaw. <laughs> amul Luc nag est-ce que xam nga gën a dégg dégg wolof Sénégal li nga gën a neex. Sénégal depuis li Nicolas ci moom beneen wax lañ doon wax mais wax bi ma wax nii daf ma indi ci loolu. Luc xaw ma lan la ma wax ba ñuy wax ma ne ko lii ma mu ne ma mu ne ma yenn saa ngay xeex yàkkamti ñu àtte la. <laughs> waaw. taxul muy lamb lamb ji nii waxuñu woon ci Modou Lo Ama ci leneen la moo ko wax ma ree mu ne ma xanaa dara musa dal Fadam ku nekk ci ñun mus ngaa xeex yàkkamti ñu àtte la léegi rek loolu laa daal léegi moom laa indiwaat tey tey lim ni ko laayu Ibrahima Dioboo Modou Lo Ama Baldé Gris ñoom ñëpp ñu ngi xeex mais yàkkamti nañu ko leen àtte makan meng yàkkamti nañu ko leen àtte donc bul bu kenn wax ni bu kenn wax ni tey woy promoteur bi lu mu ci frais lu ci def ñom ñam ñu ngi xeex mais xeex bi arrangé wul kenn na xeex foo gis sa xaliss moy dem Ibrahima Diop lu mu ci xaliss kenn xamul nu mu toll parce que xeex bi ni ni ni xeex bu métti la Ibrahima Diop tëddul di nelaw il finance beaucoup da ngay financer lamb da ngay communiquer da ngay perte temps ci xeex bi li ñu même chose hein am makan meng même chose et cetera

des sports boo xam ne ni tey jii bu demee ba di ko atte dina génne moyens yi promoteurs yi génne woon li ci ëpp mu mën a jàppale ñenn ñi pour ñenn ñi li ñu pertoon sax ñu mën ko amaat pour mën a amaat beneen courage. que ñoo xamul waaye gars yi naa ne. kenn ñi mut a jàkkaarloog ñoom ci waxi kese. que ñoo nga jàkkaarloog Ibrahima Diop li muy Ibrahima Diop li muy nekk nekk nekk nekk nekk nekk ab taalibe boo jàkkaarloo moom ci waxi kese damay ragal ak bologom bu rëy boobu mu kon liñ ne ko laaj xam na Fall dina jéggi romb la makan méng moom lu ko waaye di wax xaalis Fall yëgu na sax yëgu na sax yaa ngi dox kon xamuloo jànjee ko kon alaaji Fadam xamuloo du jànjee ko waaw xam nga soo xam nga soo déggee mën soo déggee mën ndax du jànjee ko mën na ko àttee hmm. fi ma ko teg benn point rek la lu ko waay di wax te yëkkati

wala ne ci doxalin bi nga doxalee ci quelque part wala lenn li nga def ci quelque part analyser la te maa ngi déggante ak ñoom ñëpp. Mhm. problème bi man mënu ma ko régler comprendre nga fi may waxee keneen tey il faut moom kenn koo xamante ni il est neutre mag la kilifa la te mën na ci am benn doxalin boo xamante ne doxalin bu bu bu exemplaire la te du nekk comité lay doon comité de sage lay doon tey bu ko du jànjee ko en tant que président des amateurs jiite dañuy dem jëli ji euh, quelqu'un boo xamante ne mu ngi manager yi dem jëli ji kenn koo xamante ne ci ci ci ci ci journaliste yi la bokk ci communicateur traditionnel yi dem jëli ci keneen keneen donc comité de sages la war a doon en fait nga xamante ne anciens lutteurs yi ñu jël fa donc ñu toogandoo autour d'une table pour régler ce ce ce problème la Alaaji Fadam te te ñooñu noonu mën nañ jógaat dem uti ji ay ay ay ay sponsor uti ji ay ay ay ay ay ay ay ñi nga xam ay parrain lañu pour li nga xamante ne moom la ñuy régler noonu après ñooñu mun ko sponsoriser xaw ma nag comprendre nga fi may waxee. comprendre naa ngay waxee ndax man su ma lay dégg fu ma doon déggee mooy fi nga mujjee wax nii mooy tey jii muy li Nicolas muy Ibrahima Diop di Makan Meng di Baye Ndiaye mi mujjee tëgg tamit képp ki promoteur rek boo pertee ci bés automatiquement lu nit di wax balaa mu naan la bàyyil bàyyil danaan la moyen ngi nii boo xam ne tey jii boo ko bàyyi ba def sàngam dina la mën a gunge ci moyen nangam ak nangam ak nangam. Mm. nga mën a nooyiwaat beneen nooy bu bokkut ak loolu. Mm. waaye Ibrahima Diop ak lii Nicolas nit jàpp ñëmut a jàkkaarloo ñoom naan leen dangay ngay sa date bi ngir euh, ngir ay waxtaan ak waxtaan kii waxtaan salaamaaleykum ak maaleykum salaam <laughs> duñu sax déglu duñu sax déglu ah, ah. sax déglu dina doy waar de dina doy waar mais mais mais daal mais daal tey jii balaa ngaa tëj balaa ngaa dem bëgg mooy li ma laaj mooy instant yi nii tey jii Ibrahima Diop diggante ba Gris Bordeaux te lépp lu ñuy def rek ndax heure bi Ibrahima Diop waroon na nekk ci commencé promotion am ah bien waaw première date signature bi waroon na fekk nii ñoon Ama Baldé Gris Bordeaux la nangam la ñuy daje première sport yi commencé daw bannière yi commencé daw mais boobu ba léegi gisuguñu dara ndax tey jii jotul moom ñu mu convoqué Gris Bordeaux toog waxtaan ak moom ndax Gris Bordeaux déplacé woon na dem kër Ibrahima Diop xaw ma nag la fa jëlee xaw ma la fa jëlee mais daal ndax jotul Ibrahima Diop ci boppam toog waxtaan ak Gris Bordeaux ngir sauver lim moom ngir sauver alalam ndax tey jii li ñuy gën a dem rek.

na déggoo ci cadre amna mais lu jaxase carte gi rek mom moy mom moy ki bi mom moy combat gribo do Ama Baldé bu ñuy waxat parce que loolu dafa jaxase carte bi complètement ensuite le temps que lolu gaay diko régler Sénégal jaxoso wat xam nga Sénégal moom bu jaxasoo moom daanaka moy priorité ci ci lamb jeeg yu mel non ah parce que vraiment bu xel yi dal itam ñu wax waxu lamb la preuve gis ne dañuy ñëw ba à la veille des combats ñu repousser ñu repousser lamb yi donc waxtan amna ci diggante Luc Nicolaï ak Albourakh Events amna lo xamantene xamante ne nañ ko déjà pour de très grandes innovations ci li ma jàng euh, euh gis nga fi Fallou Ndiaye dal nga ko fi keroog mom itam euh, il est à fond avec euh, Ibrahim Diop. Mhm. ak itam d'autres personnes ñu ngi monter sen ay sen ay bloc di dem. kon dal daal fusion bi nga xamné ne nii am ci diggante Luc Nicolas ak waa Alburax kon Ndiaye production dañu fusionné ak ki nga xamné ne mooy Diop. production loolu du guléet parce que Ndiaye production boo fàttalikoo jour bi nga xamante ni moom la ñuy régulariser combat Ama Baldé ak Gris Bordeaux au niveau du CNG il y a de cela un an Fallou ngi toog Fallou Ndiaye donc dès le début dafa nekkoon ki nga xamante ni mu ngi collaboré ak ak ak ak ak ba daal Fadam maa ngi sant yàlla ba coow li fekk ma ci réew mi yow kay maa ngi sant yàlla ba coow li fekk ma ci réew mi daal maa ngi toog jàpp sama ñaambur taxuma ci mais mais mais taxaw ci fekke woo waaye dara rëccu la ci. waaw damay yëg rek mais takku ma ci sant yàlla parce que am na yenn coow yoo xam kenn àttanu ko gisoo <laughs> te baaxul na moo ko wax. <laughs> mais mais mais mais mais mais fusion bi nga xam ne nii tey jii balaa ngaa dem fusion bi Baye Ndiaye fusionné ak Luc Nicolaï Enco lan la mën a apporter Luc Nicolaï Enco. bay ci gémmiñu borom la dàqi. kon amna xamna xam dafa dafa kawé mais. kenn du netali kenn du netali sa sa gentu morom. Ah, bu la ko tam bàyyi ko mu nettalil ko bopom ci gémmiñu borom mais buñ ci munti am. tay ce sont des gens qui ont beaucoup fait pour la lutte. Euh, Aziz Ndiaye Baye Ndiaye. Luc Nicolaï. Euh, Ibrahim Diop vraiment. parce que Ibrahima Diop tëgg na ay combat yu ndaw tëgg na ay combat yi yem am ci ay jafe-jafe découragé wul mu ñu waa taxawalaatal ay combat yu mag comprendre nga. Mhm. ba ci makkan itam boo xoolee regarde ces dernières années y' a pas eu de combat pendant deux trois ans xoolal Gaston ak makkan liggéey ci làmb. donc ñoom ñëpp pour man waruñ ci découragé kenn gis nga làmb bu amee une euh, làmb bu ci amee euh, kenn koo xamante ne da koy doxal. bénéfice lamb la nañu xol nuñ koy protéger motax tax te fu mu toll ñu ngi jëm ci affaire bo xamantene ne mu ngi nek ay missile sol-sol ay guerre à distance te loolu moy décourager nit pour man motax mané ma CNG na intervenir dajale ñoo ñëpp ñu tok autour d'une table essayer de régler ce problème là comprends nga fi waxé waxee Fadam parce que tay lépp li nga xamantene ni ñu ngi koy def pour man bu guerre bi takarnaase ba kenn perte bokku na ci lu koy gën décourager par rapport ak lamb quoi donc CNG nañ vraiment